Je suis en train de yàgg Je ne xaaral ma enregistrer vidéo bu pour gëna la wax sécurité président Ousmane Sonko Nous ñu gëna am vigilance parce que Ousmane Sonko dafa daané benn système té wa système Bob ñu ngi fi ba légui yoré xaalis nekk ay milliardaires ils sont capables recruter ay nervi wala recruter sax ay mercenaires yu sont ko ci sous-région bi pour cibler Ousmane Sonko dal ci tout est possible parce que Ousmane Sonko moy un problème. mais dama ko enregistré ba pare ma ne non jarul ma koy piblier quoi parce que dafay mel nii dama xeeb sécurité bi comme ñoom yàgg nañoo ànd ak Ousmane Sonko jarul ma leen di wax daal seen liggéey quoi dinañ ci veiller bu baax a baax. ndekete man lii laa gisoon man gisoon naa sax lu gën a grave lii nii moo tax gars yi lépp lu ngeen man ci renforcer sécurité président Ousmane Sonko bi def leen ko Ousmane Sonko gars yi bu ñu mënoon a fay ay mercenaires yu ko rey laa la wax ay tireurs d'élite koy def. ay sniper buñ ko bu ñu leen mënoon a fay pour ñu viser ko rey ko dañ koy def parce que ñoom Ousmane Sonko dafa leen a yàqal lu bëri parce que ñoom ni ñu jàppee nguur du sacerdoce nguur ñoom dañoo jàpp ni noos la da ngay falu nekk ci pouvoir bi di noos am ay privilège ak ay avantages di sàcc xaalis léegi nag dañoo nekkoon ci seen diggu noos Macky Sall gëmoon na ne mënoon na continuer di yore pouvoir bi jalgati constitution bi def troisième mandat wala mu teg fi kenn koo xam ne moo ko fiy teewal ba ci kanam mu ñëwaat mais falu Ousmane Sonko bi daf leen a bett lépp luñ amoon ci doole doole état recruter ay magistrats jël administration bi di ko politiquer ay DGE ay caisse de dépôt et de consignation police gendarmerie ay saagakat ay journalistes sëriñ si ñenn ci ñoom communicateur traditionnel yi mbëri maanaam Macky Sall lépp lu amoon def na ko ci Ousmane sonk dem na ba jënd ay arm quarante cinq milliards jël ay euh, mercenaires dugal leen biir police ak gendarmerie ñuy rey suñu doom yi pour tiital leen pour ñu bañ a génn ci di xeexal Ousmane Sonko léegi nag. dem na ba Ousmane Sonko rëcc na leen bi ko xeexee ne ko do nek candidat mu fexé ba duggal président Bassirou Diomaye Fay stratégie boobu mu def mu jall ñu nek au pouvoir liñ doon bañ moy Ousmane Sonko mu nek au pouvoir Ousmane Sonko nek na au pouvoir léegi lolu ba léegi mënuñ ko digérer té xam nañ né campagne bi muy def ni manam dina am ndam bu reuy bo xamanteni ni masta am ci Sénégal dina battre ben record bu masul am ci Sénégal ci walu pourcentage ci élection législative yi. léegi nag ñoom amuñ dara mënuñoo campagne parce que amuñ programme amuñ lu ñu wax Ousmane Sonko sénégalais dañ ko bëgg mu am programme am cam am lum campagner mais ñoom seen campagne yëpp ñoom opposition bi saaga Ousmane Sonko la ñuy bàyyi ba mu wax ñu jël ay wax am reprendre ko di ko saaga mais Ousmane Sonko fu mu dem il mobilise fu mu dem une foule immense moo koy topp ba pare muy wax programme référentiel bi. manam fan lañ jëmale Sénégal fii 2050. da koy faram-fàcce diko ko parce que mbir mi ay pôle la région ay pôle régionaux la région bu nek ak sa ay potentialités yi nga am loolu lañuy xol ñu exploiter région bobu non légui loolu lay loolu lay wax ci campagne bi fep fu mu dem légui loolu neexul gaay parce que xam nañ ni ñom dañuy participer ni ci élection yi par la forme mais ñoo gagner élection yi lu masta am Sénégal. ci histoire élection moo nar a am nii maanaam di nga gis ay coalition yu ngand yoo xam ne pour ñu am cinq députés yu mat problème lay doon sénégalais yi dañoo namm gis photo Ousmane Sonko ci bulletin de vote te loolu Macky sàll à partir de deux mille dix neuf bu ñu génnee ci élection yi la jëloon décision na loolu dootu fi amati jalgati yoon jaay doole recruter benn mafia boo xamante ni bandi yëpp a ci biir dugal leen ci ànd ak Antoine Diome ak Ismaïla Madior Fall ne Ousmane Sonko dootu fi nekk tey candidat tasaare seen chroniqueurs yi ñuy saaga naan Ousmane Sonko du fi nekk candidat ku bokk Pastef du nekk candidat di def ay pexe pour tëj ko kaso yàq àddunaam waaye nag à la dernière minute yàlla ëlbati carte gi lépp lu ñu amoon ci doole def nañ ko ci Ousmane Sonko te mënuluñ ko dara léegi nag ñu bàyyi ba Ousmane Sonko rëcci leen ba accéder au pouvoir nag ñu ne dañ koy song di ko attaqué dégg naa dañu leen a duma image yaa ngi nii ngeen di gis bañ bàyyi fa seen pick-up bi ak seen jakarta yi parce que ay jakartaa la ñu yoroon ak benn pick-up bëggoon na infiltrer euh, convoi bi pour xam naa cibler Ousmane ko pour gaañ ko dañoo bañ Ousmane Sonko gis nga ay ñoom Barthélemy Diaz Macky Sall ak euh, ñoom euh, Thierno Bocoum ñoom ay Bougane Gueye Dany ak ñu ñu andal ñep ñom wa opposition bi manam daño bañ Ousmane Sonko bañ go xamanteni ba ci Pape Djibril Fall manam mbagnel gi dafa jéggi day parce que Ousmane Sonko dafa am lu mu leen xagn Ousmane Sonko dafa xagn ñom Macky Sall seen nguur gi ba paré ñu doon espérer né biko Macky Sall créer les dossiers Adji Sarr bi ñom bu ñëwé ñom dañ koy remplacer moy ñuma tuddu sank ñoom it dañoo am déception am frustration instant bi ñu ngi doon xalaat ne Ousmane Sonko kaso lay nekk fa lay dee ñoom loolu lañ jàppoon moo bi ñu condamné Ousmane Sonko Barthélémy Dias génn pour doggali ko maanaam nga fekk benn nii wu tëdd nga ñew diko ko ay balu fetal mu né Ousmane Sonko ça jéxna Macky Sall éliminé nako ko te Macky Sall loolu leen gëmloo won légui nak Yalla woné bopam parce que Ousmane Sonko dafa taxaw né man Yalla rek la yaakar gannaaw Yalla peuple sénégalais bi la yakar peuple bi and ak mom di xex bañu accéder au pouvoir légui ñi seen mbañal gi dafa gëna yok xam nga ngay xex nit bëgg mu alaku bëgg mu yaq bëgg yaq àddunaam bëgg yaq carrière politique am éliminer ko définitivement muy ku nekkon pouvoir di Macky Sall ak ñu nekk ci opposition bi jamono ji té temps ñu nekkon opposition don and ak Ousmane Sonko di gëmlo ne ko dañ la bëgg ñooñu tey Ousmane Sonko lu mu accéder au pouvoir nii rawatina mu jël pouvoir bi jox ko président Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne masul prétendre pour nekk candidat ci élection présidentielle mu ñëw rek ñu Ousmane Sonko yàkkal ko mbir mi mu yomb lool parce que électorat bi mu ngi toog di xaar Ousmane Sonko rek lañu bëggoon a fal Macky Sall na kenn du fi falee Ousmane Sonko ñoom ñu jàpp ne nag Ousmane Sonko bu ñu ko éliminer jeex na day def comme parti traditionnel bi ñu daan def su man du nekk keneen. buñ ma éliminer jeex na parti ba day tas wa Pastef gatch ngalama militant sympathisant ñëpp japp baña bayyi bàyyi kenn bàyyiwul bi mbir mi gënee metti ñu japp Ousmane Sonko japp leet naayam yëpp tek président Bassirou Diomaye Faye ñom Fatou Keita tas parti bi Antoine di wër ci permanence di dajji photo Ousmane Sonko diko di xol bu sedd ndax jour bob moy jour bi ko neex ci bëssami mok ndax bañ gi bañ Ousmane Sonko dem yaraax di créer ay attentat pour gën a doggali Ousmane Sonko te boobu jàpp nañ ko ba tëj ko ci kaso pour gën a écraser Pastef gën leen a yàq yàlla subhanahu wa taala nga xam ne moo wax ne wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu xayrul makirin nit mën nga def sa ay pexe rek di def say pexe rek jàpp na sotti na jàpp na mën ngaa yàq nit fekk bobu yalla mu ngi ko réserver lu rëy rëy rëy yalla na len sen pexé yi ngeen di def du sotti de suma ñëwé ak sen samay pexé di ngeen xam sen pexé yi du dara légui ñom ñëpp tay lool lañ ta supporter ba buñ mënon a Ousmane Sonko la la wax dañ koy ray motax gaay labal yu fas taxu ta fas raw fas nga ci kanam yokku cere dolinya. ñeex sécurité bi gën léne vigilant gën léne sécurité bi ci campagne lañ nek tay bu force de l'ordre ñu ak rek di nga gis ñu opposition bi utilise les moyens de l'état les forces régaliennes à leur faveur Macky Sall def mu président président parti en même temps mom ci les moyens de l'état di def ay activités politiques faut que dem force de l'ordre dañ top mais ñi né nañ bëggu ñoo def lool Ousmane Sonko bi mi de Dakar Arena mais normalement force de l'ordre dañ là. parce que même si nek Ousmane Sonko en tant que premier ministre et président Patrick Pastef mais fep fuy ay mbolo di dajé plus de 15 000 personnes parce que faut 15 000 places plus de 15 000 personnes ñoo fa nekkon fofu vous ram ay force de l'ordre C'est normal motax lol timit war nañ ci xalaataat bu baaxa baax bu ñu dajé nañuy jël force de l'ordre ñuy ñëw di assister parce que lol moy seen liguey du question dañoo far wala dara mu nekk ci côté opposition bi tay buñ oote won dajé bu reuy force de l'ordre dañ fa war nekk motax ñu ngi leen di fatali dal ngeen veiller bu baaxa baax sur la sécurité du président Ousmane Sonko amna ño ñoo le 17 mo leen fi bayyi seen carrière politique jeexna c'est mort pour eux jeexna dañuy ngand ngand lu rek mais ils sont morts politiquement wa